nag di leen jaajëfal bu baax yéen suñu internet Leewtoo TV comme niñ koy defee chaque jour ndogu ak dañuy dem daagu ndànk fekk mbër champion fa mu nekk daal di waxtaan ak moom xool nan lay dundee koor gi ci biir koñam nan lay dundee koor gi ci biir kon tey jii nag ñu ngi fii man Far Medina fekk beneen mbër beneen champion ko xam ne duñ tudd trois espoirs ci làmb te tudduñu ko kooku mooy kan l'enfant de Sandaga l'enfant de Joal l'enfant de Réfane l'enfant de Bawal dañuy daal di dugg rek Mansour ñu jéggi xool champion bi la du ma wax kan la champion baa ngi noonu gi lañ koy wax di ko nuyu di ko jaajëfal ci koor gi mbay nuyu nañ la. waaw maa leen di fay waa Leewtoo ah. ci lu ngeen ne mbaa am ngeen jàmm. kontaan ah maa gën a kontaan ah yéen ñu ñëw ba sama koñ seet ma tey ma nar a ñu nar a sarvi ndogu yeeg sama booy sama mafia bi mooy lool ñu dundee koor gi. ah koor gi moom ñu ngi koy dund rek comme ni ko gars yi dundee ah. ñu fekk la fii nga taxaw yow sa këll nii nga koy dundee chaque jour ak sa waa koñ wala. non pas chaque jour nag mais booy léeg-léeg lii la ñuy def quoi ñëw kii mais man chaque jour damay dem liggéey ma ñëwee kër ga ñëw mais tey damay ñëw par partagé ko ak ñoom quoi mooy loolu. loolu rafet na kon mañ dañuy ànd ak kii mbay gu gi ndànk rek mu présenté ñu gars yi. waaw sama booyaay nii. fees ñoom Ablaye. dee fa ngi noonu. dama leen nuyu. waaw ah, sant rek. am ah, man moom saa bu ne rek bu may wax sama bu may commencé sama wax suñu Touba laay commencé ndax ñun dañu doon jeune yaakaar suñu Touba dëgg si quartier bii nii muy Médina ndax ñun fi lañ juddoo rek fii Médina lañ juddoo nag kon lu ñu tàmbalee nga tàmbalee si yoonu Mouride. ndax ñu ñëpp booy yi fi ñëpp ñu toog nii ay xale lañu du benn mag booy yëpp ay jeunes te gëm booy yëpp gëm seen bopp lañ waaw comme ni nga wax rek affaire moom lu comme nu ma wax kii rek da nga yaatal sa bopp maintenant soo fi nekkee soo yaatalee sa bopp rek booy mooy loolu ñun ñu topp nit ngir xaalis ñun dañu jaay suñu ngor da di champion soo amee combat ñun ñëpp si ñëw jàpp billaahi lu ñu wan moo tax ñuy def loolu billaahi wallaahi non mbay guy gi moom moo ba dëgg yàlla yàggul moom fi ñëwee tax mais day ma gisee moom borom jàmm nga xam ma yaa defar affaire yi normal booy jox nañ la cër respecté nañ la wax dëgg fa yàlla affaire yi moom teg nga ko ci yoon nice affaire moom yàlla na yokku rek xam ma muy gën di law affaire di gën a neex rek yàlla boo amee combat yaay pare ak maam Balla koy ah. waaw kooku du naa de fii rek bàcc non mbay kay moom ku baax la nag dëgg la ku topp ngoram la quoi xam nga rek. yaa wax gën a xam ak chaque fois moom dafay ñëw. Uh-huh. jàppale si booyam. comme daf lu nga ko daanee def rek noonu la koy def encore. mooy loolu daal noonu la demee daal. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di la gërëm mbay parce que yow moom da nga nekk nit koo xamante nit ku baax nga. oyof dund ak gëstu gaay bu jàmm lu tubaab di wax dans la vie il faut donner pour recevoir loolu nga def. moo tax ñun luñ da dara daal sa xol suñu da ko fayee rek ndax soo bëggee ndaw ñi moom jox dara da ngeen koy jox te loolu ko jox respect kon lu ñu am dara lu ñu daloo soo amee combat da ngay firéeg jafaloo kenn ak di la jaajëfal bu baax yaw moom si kuulu grand nga quoi yow di wax combat ba ak maam bala pare nañ bu yàgg ñun moom ndam rek la ñuy xaar instant ndam rek incha allah waaw loolu moom lu baax la moom yaa ma gën a xam may moom suñu grand la moom ah. combat bu amee day jàpp si combat a xam moom koor gars yi nii moom jàpp na si lépp moom macha allah moom. mais lépp impec baay. mooy loolu waaw mooy loolu baay. da ñëw yaatal sa bopp mënoon na bañ ñëw ne booy dañoo réew wala yaa ngi doon xam. mais da ñëw bokk booy yëpp. bi sadu yaa si dugal te loolu mën na si bañ a fekk nag. di la ñaanal nag yàlla ko yàgg yàlla di wa sallam. asalaamaaleykum ñu uh-huh. moom mi ngi nii moom moom. dëgg la ku ku ku ku ñu ubbi ku suñu bopp quoi xam nga mbay dafa nekk grand boo xamante ne rek. ah dafa ubbi dafa ubbi boppam ñëpp. ñun tamit ñun tamit ku ubbi sa bopp ñu ubbi lépp. waaw te ñun naa moom ku ñu faale ñu faale la ku ñu faale ñu faale ñu la quoi. mbay moom ñi ñëpp jaar ñëpp mbay moom wax dëgg yàlla nit ku baax la te moom li nga xamee moom ah, entraîné nañu tëddal nga xamee. te te moom mention spéciale daal di ko ñaanal suñu borom fi mu bëgg a egg moo xam yàlla na ko yàlla eggale di koy ñaanal combat yi mu dëmmal yàlla ko yàlla may ndam bu amee de combat daal yàlla may ko ndam da leen koy ñaanal quoi ndax moom wax dëgg yàlla fonk na nit ñi fonk na waa koñ bi fonk na ñëpp fonk na ñëpp daal di koy ñaanal sa moom moom it euh, fonk na entraînement am te te du ko caaxaanee quoi. maanaam loo mën a wax si yow da nga waajee sa bopp bu baax foo room ñi da ngay nuyu même soo roomoon xale bu ndaw sax nga xam nga da nga koy nuyu yow noo nga mel da nga waajee sa bopp ànd ak ñun dañu ko ne lay ñaanal rek nga dem si kaw si kanam rek waaw loolu la. waaw Mbaye ndax moom lépp jaam maa ngi nuyu ñëpp non damay fa laay tàmbalee dama lay wax définition ku dëkk Médina d'abord. booy Médina mooy jeune boo am te ne. moom boo ko yëgul yëgu la. yaa ngi comprendre mais mais nag suñu grand suñu lépp la dafa ñëw jugement boppam wàccee ñun. instant yi dañuy ànd mais mënoo wax ku mag ak ku magul dafa ñëw wàccee boppam di ànd ak ñun loolu ñu ngi koy sant ñu koy gërëm combat bu mu am dañ si teew te ñun lu ñu xewle moom nañ njëkk a woo parce que moom mooy suñu mag ñu moo ñu njëkk a yeedal ba pare. ok salaamaaleykum wa rahmatulah. combat gën a ñëw rek. combat liñ soxla. maa ngi lay fay soxna si naa def waaye yéen a ngi si jàmm. ginnaaw ba ma la nuyoo ma fekk la fii ci ndogo bi nga xam ne nii mbay guy gi ci invité ñu fekk ngay liggéey soo ba léegi ba relation nga mag ak mbay guy gi mbay guy gi dafa nekk nit koo xam ne dafa ñëw ci koñ bi jël ñii mu def leen yaay jël ñii mu def leen mag jël ñii mu def leen rakk jël xale yi yëpp mu njaboote leen ndax tey jii lii nii yombul nga xew la ay xale yëpp ndaw ñëw nekk sa gannaaw loolu yombul man mi lu ma bàyyiloo sama soxla yombul waaye moom mi moo ma ko jaral parce que jox na ma cër respecté na ma xam na man maay kan mbay guy gi koñ bi cat ba foo laajte mbay gi ñëpp xam nañ ko ndax mag mu nekk jox na la cër jox na la respect ku ci nekk xam na lan lan la séq ak yow te loxoom ci boppam dañul ci xale yi mbay guy boo ko fekkee fi muy jëndee ndékki presque dina dépenser lu mat 30 mille ci taabalu ndékkikaay bi te lépp ay jàmbur lay jëndal ndékki ku nekk mën na la jëlal ku nekk mën na la jëlal boo xewlee gis ay nit c'est parce que sa jëmm moo tax xale yi pour nga lajale leen yombul ndax tey ji bu fekkee da ngaa xewle xale yëpp ñëw taxawal la c'est parce que grâce à moom moom moo tax ndax man mii ma jël sama place tëj ko ndax mbay guy gi ni mu ma def moo tax yére bii ma sol moo ma ñëw fekk démb ma toog ne ma am man maa la ko jox kon xam nga ni loolu yombul mbay dañ koy ñaanal ñun li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko suñu borom defal ñun waa koñ bi amuñu fayam amuñu fayam ndax koñ bi lu nit xew la loxoom mi ngi ci lu nit xew la moom jëmmam mi ngi ci kon moom ñun amuñu fay fayam kon tey jii du xew la ndax lii dafa tardé sax bi moo koy wax ay 5 heures na ma fekk fee ne ma Marème waa Leewtoo dañ fiy ñëw tey seet si ma xale yi ñëw la ñu yoroon yëpp ñu jël ko dajale ko jàppalee ko mbay guy gi moom moo tax mbay dañ koy ñaanal yàlla li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko suñu borom defal lii muy wut ci làmb ji yàlla na ko suñu borom defal ci barke Seydina Muhammad ca kaw ci kanam rek ci lu baax te incha allahu rabbi dina ko am barke yonent bi ndax gis naa ni ma téye gis naa ni ma jàppee yéen tamit amuñu seen fay yéen ñi nga xamante ni yéen a ñëw tey ne da ngeen ko soxla pour euh, def ak moom ndogu yéen tamit amuñu seen fay dañ leen di ñaanal yàlla yokkute yàlla sàmm leen leen ci barke Muhammad chaque jour bi ñuy wàcc ni billaa walaay ñooy ànd maag saawaay mi Moussa mu doon borom baax saay mu amee comment chaque jour fii lañuy jogee dem billaahi muy borom baax mbay gi baax rek nekk champion di bële di daan borom ri 11 borom ri 13 xale bu baax la bu yarula de ba mu jàppee ba léegi bàyyiwuñu wax dëgg yàlla dëkk na fi taxu de waaye fàttewuñu lu muy def fii la koy defee lu mu am fii la koy indi lu mu am bokk ak ñun kon sant yàlla rek di ko ñaanal muy bëri di daan rek ñu indi ay victoire. xanaa mu yoru rek te tey dal mag bu mu gis jox ko cër jox xale yi cër mag ñi ku ko ñaan bu yoree may la kese. dañ ko yónni yaakam di ko ñun ay xale lañ moo dafa nekk si yoon bu ma kenn téye waa mit naa dañ ko sas dañ ko yónni yaakam di ko bu bëri dañuy obligé dem benn stade dañuy def day def xoolu si dara ndax ñii dañ koy si boole moo na muy def dama dem ngir yàlla te yàlla tax def dañ koy defal ngir yàlla te yàlla tax amul ale xamul mag moom ñëpp lañ yemale dañ koy ay moromam Gana Gana Fall champion bàyyi noonu de Mbaye. daa mel ni waxtu bi léegi mu jot de. waa léegi mu jot naa ñu ngi xaar fi ne nii mu jot rek ñu seddale mburu mi jox ko jaami yàlla yi. mañ ndogu mbër lañu wax de yow ñaata mburu ngi jël. man moom tuuti laay dóor rek fi mu ne nii koor gi moom alimentation bi dañ koy wàññi dañ koy cof. par ñaata. non par tuuti tuuti rek. ndogu reer xëdd wala. ndogu après ñu toog dem entraînement ñëw reer après ñu xat mën nañoo bañ a xat sax léeg-léeg ah lekkee lu ci reer bi. looy man lu may reere li gars yi reere comme ceeb wala yooyu noonu. waaw fonde. non fonde moom soxlaaw ma ko. fonde moom fonde moom bëggatuma ko ndax booy ñaa fonde bi doy na sëg man moo tax du ma lekkati fonde. fonde bi kay nakoon naa ne Pikine fi mu ne nii. nee fonde kaas fonde bu tàng jër bu am xorom la leen defaraat. Ah, moom lay defar bu ko defaree nag danañ ko ko xol mu naan ko force moom. noonu koy xoolee da jàpp tànk yi jàpp ci loxo yi wala. jàpp tafaa ku naan benn loxo xol ko benn bi du ci mën dara. man mbay gu gi na mu ngi attaqué nag frontalement na nga jël kaas daal di koy xelil kafe. ni ko ni ko ni ko kaas bi. kaas bi kaas bi. Fodé lañ ci sol ba mu féer téye booy ñaa xol ko ko sotti ko ko. mu ŋaa ñu xol ko ko xol. xam nga yeneen gars dañ ko koy jox di ko neexal mais moom dañ ko bu rëppee sax nii la ñuy def gémmiñ gi nii xol ko ko. mais malal kafe na dem na dem na dem malal na dem Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Babam. Ala bora bora. Kana. Kana. Bora bora. Ala bora bora. Ala bora bora.

non rusuma de. jëla kii sama jabar la sama jabar la ah te loolu ñu ngi am. ah. am nga ñaar moom instant bii. waaw léegi. Adja Aye. waaw da ngay sóob rek yow. naag rek. Para! Devam et. Yok. Milyonu yiyor. Devam et. Ya, bana gelmiyor. Hadi abi. Bana gelmiyor. Kurban dayana para. Wasim tol nga wasim tol. waaw xajal nañ ko xajal may ko may ko final. di liggéey mu naan nañ ko fay. waaw soxor quoi mooy lépp. rek ndànk. mooy ndànk boo ndànk ndànk ndànk. boo yéen ñi doon da ngay taxawee Franc. ah. Amadou Amadou dem dem dem dem. dem dem Amadou allez rek dem. loolu daal suñu wàll. loolu loolu. loolu. loolu. loolu. sept huit neuf xaj ñëwam Go. Bye.

bu kër daa fees. kër bi daa fees. bentaan ah. ndànk. ndànk. laalal mafia bi sama sama boy rang Jaraaf Youssou Ndoye foo ne foo jëm dëggalal sa bopp waay fils ah huit neuf deux trois quatre cinq six sept huit Vaya para. ¿Nagada? Vamos con un ámbar. Dos, dos, tres, cuatro, seis, Thank you. trop ñoore benn tànk par benn Thank you. Allez

Samad bu fees bi. sa bio la. leer waay. jaaxaat ma ne. yow jaraaf loo fi àndal yow xooli. lii loolu la. Six. Seven. Eight. Nine.

mu ngi noonu nag Mansour comme ni ma leen ko waxee ci ngoon rek nee na ki ma sees tey champion la champion fan la bawal boo nee bawal ne reefan champion reefan mbër bi nga xam te ne bu jógee Mass Sandaga ñëpp jóg bu jógee Petersen ñëpp jug bu jógee Medina ñëpp jug kooku mooy Mbaye Gouy Gui dama koy nuyu rek daal di xuus ak moom ci waxtaan bi Mbaye Gouy Gui nuyu naa la. waaw maa lay fay di wax ginnaaw bon sant yàlla julli ci yonent bi. ñuy wax jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu ngi nuyu ñëpp ah di nuyu kilifa diine yi ci dëkk bi yëpp di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi te wér ak bépp kilifa diine Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg maa ngi nuyu sama yaay bu baax di ñaanal sam papa fa mu tëdd gën ko fi mu jógee ak képp ku sa papa génn àdduna ci barke alxuraanu karim di ñaanal ñëpp jàmm di wax koor gi ñu ngi ciy baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak ah, di leen wax yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin si noonu mbay guy gi ñu fekk la tey sa koñ ci weeru koor naka ngay dundee ak koor gi waaw koor gi ñu ngi koy dund comme niñ ko doon dundee kon dab comme dab ah parce que depuis ñu xàmmee ba léegi doon ay xale ñu ngi woor quoi waaw ci noonu dañuy dëpp tuuti avant ngay dugg ci làmb sa carrière avant ngay nekk mbër lan nga nekkoon mbay ngay gugi man avant may nekk mbër xale laa woon rek nekk dëkk ba ah. mhm. di jàng ba màgg ñëw dakaar mhm. bi ñëwee gi sunuy mag ñu dekk ci làmb ji di bëre ñu nekk dëkk ba di leen seetaan ku ci mel ni Tafatine sunu mag mhm. daanaka moom lañ xool ba bëgg làmb ah waaw ak sama turandoo guy gi ah ci noonu lañuy jaare rek nga bëgg làmb daal dugg ci làmb ka mooy sa waaw sama idole ci làmb ci kay guy gi la. Hmm. mais ci tafaatin lañ xool daanaka ba bëgg làmb ah. mais guy gi lañ xool mu neex ñu ñu tuddee ko suñu bopp. Hmm. lan moo la gën a neex ci guy gi ba nga tuddee sa bopp. li ma ci gën a neex mooy ni meloon doon xale. Hmm. am fugu yaa ma gën a xam affaire doole quoi xam nga rek. te ñu nit ay xale lañ toll nañ fi mu toll woon depuis depuis muy def lool foofu lañ toll instant bi nga nekk ci làmb mën naa ne yàgg na yàggul nga am ci bés yu neex am ci bés yu naqari sa carrière lan moo la ci gën a marqué. waaw sama carrière moom wax dëgg fa yàlla maa ngi sant yàlla parce que xale bu ndaw laa bërki démboo njaay laa dugg ci làmb 2016 xaw ma 2014 ah laa njëkk a bëre mhm. maa ngi ci 14 combats ah, am naa 11 victoire am naa ñett défaite mhm. waaw maa ngi sant yàlla demaguma fenn ci làmb ji ah waaw Mbaye Gouy Gui nga nekk mbër te ku xam mbër xam ay relation ak yeneen mbër yi ba relation nga am ak yeneen mbër non man moom ku képp ku dul mbaru bawal aw ma ak yow benn relation bu dul guy gi. Mhm. guy gi moom am na relation sama xarit la dañuy déggante. Mhm. dal may woo di ma conseil di wax ci man lu naay ah. sax. Mhm. mu doon sama gain. Balla Gaye itam sama xarit la yaa ma gën a xam kooku moom Aziz Ndiaye moo tax ñu xamante sama xarit. sama papa sama lépp Aziz Ndiaye. Mhm. waaw kay di nuyu it Dieye Séna Dieye promoteur. te nga sa baaraam foofu dañ fa ñëw léegi léegi tey jii nga jël sa bopp tuddee guy guy gi dëkk Géejawaay. Ah. nga nekk Medina nekk doomu Bawal. tey jii bu doomu Bawal doon bëreeg waa Géejawaay wala ku nekk ci équipe Mor Fadam nooy def. ku ku dëkk Bawal di bëreeg waa Géejawaay man ki nekk Bawal laay faral ragal péete day xañ a wërsëg man guy gi rek laa tudde sama bopp ah. Mhm. sama yoon ci keneen. kon instant bi pare nga pour bëreeg mbëru géejawaay yëpp. ba may bëreeg mbëru géejawaay mat xaw faa rey nit man du ma fay mbër ban bëgg a dee daan leen. mooy loolu mais guy gi daal moo fay sama idole moom laa moom moom sama nit la sama lépp la. Mhm. waaw Balla Gaye sama xarit la mais teewul képp ku fay bë dëkk bawal di bëreeg waa géejawaay man ki dëkk bawal laay farat bawal laa juddoo fa laa yoroo. Mhm. fa laa màggee. ci noonu ñu gis sa relation ak ki mooy Aziz Ndiaye. fu ñu mhm. gis mbay Guy gi gis Aziz Ndiaye fu ñu gis Aziz Ndiaye gis mbay Guy la mooy sa relation yi ñaar. waaw Aziz Ndiaye moom boo may wax loo ci moom sax damay sawar. Mhm. sama papa la sama xarit la kooku. defe naa li mu def ci man sax sama mag yi ma bokkal ndey ak baay defuñu ko ci man. Mhm. kon aw ma loolu di ko sant di ko gërëm koo kenn la ci man ku lay woo nga ñëw mu yëkkati yan xaalis yu bëri yoo xam ne jox la ko. te bokku ngeen dara yàllaa def mu bëgg la bëggal la boppam. di la jàppale te la sax bu ko wax mais man ku ma defal lu baax dama koy wax. Aziz Ndiaye moom kenn la ci man al amin sama xarit la gàmmo gi yëpp damay dem këram mu gane ma te bu may ñibbi gàmm mu yëkkati xaalis di ma jox moom moo ma bëggal boppam. xam man mënoon naa ko bëgg bëgg naa ko sax mais moom moo ma ne yow maa la bëggal sama bopp. kon loolu yaa ma gën a xam. lu yàgg la te mooy loolu bu doon ay foo ba léegi yaax na. waaw. ci noonu nag barki di moo Ndiaye gis gis leen fee ci kër ak yaa ngi wax it sama papa sama xarit koo xam ne itam comme ni Aziz demee la demee si man rek dal maa bëggal boppam koo xam ne saa bu xëyee dal may woo téléphone xool mbay ci loo ne yaa ngi ci jàmm mbaa dem nga entraînement lii lii léeg mu ne ma kar ne ma lan nga manqué jéey mhm. ma ne kon naay lii laa manqué wala lii bu dee xaay léegi mu dugalal ma ko mhm. bu dee lu ma soxla leneen mu ne ma lii nee na ma loo soxla waxal mhm. këram dane ma chaque jour damaa bëgg nga fay ñëw mais xam nga géejawaay fii daa xaw a sore moo tax mais kooku moom kenn la ci man moom itam jéey seen moom mook Aziz Ndiaye ñaar ñooñu moom kenn lañ ci man ak sama papa Daouda Sarr suñ président écrit ak sama papa Bada Dione ñooñu moom dañ may jàppale te yàlla tax waaw ñooñu moom maa ngi leen di ñaanal ñoo xam liñ bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Mouhamed ci barke alxuraan waaw ñooñu samay xarit lañ Aziz Ndiaye kenn la ci man jéey seen Daouda Sarr sama papa Bada Dione ak waa seen Sandaga képp ku naan yokkal ma jaay la it maa lay nuyu man commerçant laa man du ma mbër moo xam ne damay xëy tat xalaatuma ko damay liggéey du ma dem ci kenn nag naa la may ma damay liggéey ba nga fekk ma ci ni ma mel nga jàppale ma si man loolu laay def di xëy di waaj yaa ma gën a xam di nuyu képp kuy yokkal ma jaay la ak waa centenaire sama xar yi ne foofu ñoom Mor Baye Fall Baye saal ñoom maalik mécanicien maa ngi gërëm gaa yëpp daal sama xarit yi ne foofu. ci ñoom Maas ci noonu dañoo gis. ak mbay mbay ndereb sama xarit la sama doomu ndey la mbay ndereb noo mbay ndereb kooku. kenn la ci man moom itam c'est man ñi may jàppale te bëggal ma seen bopp te xaw ma lan la man mm. demuma fenn ci làmb mm. mais ñoo dañoo ñëw gis ma bëggal ma seen bopp te ma doon xale bu ndaw mm. man du ma dara defaguma fi dara dara dara samay ginnaaw ay grand laa topp rek di di meñcee est-ce que dégg nga ma yàlla nag mooy def tey nga doon xale am tur est-ce que dégg nga ma man loolu la yàlla def ci man yàllaa def ma teel a ràññeeku rek mais defaguma fi dara waaw mbay nderet moom dal may jàppale ak maas centenaire ñoo ñëw ma seen fay mbay ndereb moom sama waay la sama xarit la chaque jour dal may nimeku di xool ci lu ma nekk ak sama xarit Mor Baye Fall ñooñu kenn lañ ci man mooy lool ci noonu nag dañoo gis li nga xamante ne mooy 100 pour cent Bawol ñu gis képp ku bokk Bawol dañ commencé di booloo def benn takk nekk benn dañ ko yéex a def wala lan lan moo waral instant bi ngeen meroo rek booloo nekk benn. non xam nga tey jii dafa jot. parce que ñun boo nu gisee ñun bu ñu demee Bawol suñu yaay yëpp xamante nañ. Mhm. suñu papa yi xamante nañ. Mhm. kon ñun lan moo war a tax ñu war a mën a bu lan moo tax waruñoo mën a booloo doon benn. Mhm. ki Bawol kenn la fa yàlla teeg menn mbërë fa ne ku ko nangoo ku ko nanguwut muy tafaatin. Hmm? amoon na ay grand ñoom Salloo ñoom Ngunda ñoom mbay Diouf ñooñ suñuy papa lañ. def nañ fi liñ fa war a def ba mu rafet ñu dem. ginnaaw yàlla nag tey tafaatina fa ne mooy sunu mag. est-ce que dégg nga ma liy wax ji mooy ay xale lañ ci ginnaawam la ñuy topp man boog te xam naa ne ñëpp sax ni la ñuy toppee booy bawal yëpp ñu ngi topp ci ginnaaw Tapha mu doon sunu mag képp ku ciy def dara laaj ko conseil mu xelal ñu mooy sunu mag te loolu la yàlla def waaw. ci loolu nag mooy seen mag te ku jiite wane yoon bu baax moom combat bu mag contre ki nga xam te ne mooy doomu dégal l'enfant de Pikine di Boy Niang numéro 2 naka nga gisee combat mais nag ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yóbbuñ ci ak rek mënaguma cee wax quoi nañ bàyyi ba keroog combat bi ñëw ak jàmm ñu mën cee wax li ñuy wax mais tey moom garaawut jaru ñuy wax ci Boy Niang wala yii quoi mais daal ñu ngi ñaanal Tapha yàlla may ko ndam bu combat bi ñëwee. taasu fonde bi da koy daw. non garaawul quoi. soo ci Boy Niang sunu xarit. <laughs> seen xarit du seen benn xarit. ñoo ngi yor yetam merci ci loolu lañ jëm ñu ngi si Joal keroog signature contrat ba ngeen ñëw ko fugg lan moo waral ngeen ñëw fugg boobu. non Tapha Tine mooy loolu suñu grand la xam rek bëggu may sori bàyyi ba su seen combat ñëw ñu yaatal ci luy yaatoo yaatu mais bi moom bu ñuy wax ci Tapha ak Boy Niang dañuy sonal suñu bopp rek parce que ñëwagul quoi. nañ ba mu ñëw rek boobu ñëwagul waaye bi ñëw te nekk ci cëppaandaw gi mooy sa combat ak Mame Balla na nga koy préparé. waaw Mame Balla champion la doon sunu grand jiituñu ci làmb bi muy bëree ñun xamuñu luy làmb yàlla def tey ñu ne ci yoon di bëre di bëre di bëre di bëre ba yàlla def ñu daj ak moom mu daan sunuy grand daan suñu grand Mbaye Diouf bëre ay tàkkusaan yu bëri ah ñu toog di ko seetaan yàlla def tey ñuy bëre ak moom sunu fierté la mais nag ñu ngi ñaan yàlla mi yor ndam bu combat bi ñëwee ñu jàpp ko ndànk daan ko ndànk parce que grand frère la ah. damay dégg sa kàddu chaque jour nga ne grand frère la jàppee ko mag kooku di Mame Balla nga topp di ko dëkk ba yàlla tey def seen combat taxaw yéen ñaar fan nga teg nga jàpp ko def ko grand da nga jàpp ne yaa ko mën wala nu mu noonu. maam Balla yàlla rek a man mais ñun ay xale lañ mais maam Balla boo tegaloon fii saaku tànkal du ci màcc benn bokkuñu maa ko bu doole maa ko man maa ko gën a ñime maa ko gën a nekk xale bokkuñu ko def na li fi war a def lépp champion la. mais arbitre soufflé ci kattanu yàlla ak mbaaxam moo tee ma toog ci kawam mu neex ko mu naqari ko. mbay gu gis nga maam Balla yow gis nga barki démb dañ fi def xale bee ca parcelle. doon wad wadi waaw gis ñun ñun. day jommal xale de yooyu ñoom ñoom duñ benn xale yooyu ñun xoolu ñu leen ci làmb ñun làmb dañoo teg suñu bët ñun li Modou Lo yin am li am Baldé yin am li tafaatin Tine suñu mag am ñun lool loolu lañ teg suñu bët est-ce que xam nga li ma ñun loolu lañ teg suñu bët est que dégg nga ma ñun néewuñ ci leneen ci loolu rek lañ ne mooy loolu ay waayi samba yaa ngi ngan jaay digg joor naay wàcc ma daan naa la wóorul waaye ku daan kaw lay fiiti mbay guy gi champion bawol bangook man de ràññee naa la te ma di woy xam ne jàmbaari juni juni jàngook jàmbaari legi léegi jàngook ma jara buri laat ndeysaan ko ko ko ko balaaye ma jara buri laa ndeysaan ko ko ko ko balaaye andaysaan ba belo surooru ba manke e aye man de bakk naa la te ma di la ji nooy mbay gu gi doom ji yaay ji gërëm sa biir kër kenn du ko yërëm ndax dangaa làqu ngërëm am nga jom am nga fayda kenn mënu laa yëpp te la xëy guddi wàcc yow mi boo sajjee mu neex boo sañ ci réew mi yëngu xale yi bëgg nañ la mag ñi bëgg nañ la yow mi jàmbaari juni juni jàngook ay waay doomu yaay labbu dem na ko waaw mbëri préparé leen bàgg war na mbaam far ay waay doom yaay doom yaay wooyi labbu den ko ne ay mbëri préparé leen te waaj mbéy guy gee ngi ñëw dal seen kaw far yee Sénégal àdduna maa ngi leen di nuyu sama xarit champion bu mag bi mbéy guy gi di doomu bawol am jom bëgg ñu bëgg xale yi nag li ma gën a marqué ci moom chaque jour ma ko ko mbër dangay bëgg sa bopp di sance mbay bu la rombee sance nga ni kii du mbër barke Seydina Muhammad bëgg xale yi xale man na koo tardeloo fii deux heures de temps wala quatre heures de temps te nit ki nag boo xamul noom nu lay def nam la def moo tax yàlla na la yàlla defal jàmm yaag sa waa écrit ak say famille ak képp ku lay safoo Medina gaa yi ñu ngi sa ginnaaw de ah man de woykat yi maa ngi leen di woo jeune talent yi nga xam ne ñu ngi dégg ñu ñëw jàppale champion bi mbéy gi ale jaajëf mu ngi noonu nag macha allah bég nañ ci moom loolu di ko kontaanee bu baax a baax kaddu yi rafet na mbay ñu ñëwaat sa combat bi rek. Ah. préparation physique. waaw na koy préparé ñaata séquence séquence d' entraînement ngay def par jour. nga may ma tuuti rek. Mhm. maa ngi gërëm daam Cissé. Mhm. sama xarit sama doomu nday sama grand. kooku dal may jàppale. Babacar bu mot la ma maa ngi moom ñooy nekk chaque jour sama xarit la sama doomu ndey la ñooy nekk chaque jour. Mhm. Mor Diouf magam ak la ma seen mag ak waa Peter seen tout. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu waa Sandaga yëpp. di nuyu sama xarit yi ne foofu yëpp waaw. Ah. maa ngi waaj sama combat ah, ak ni ma ko doon waaje sama yeneen combat yi bu dee physique ñoo ngi ci bu dee endurance ñoo ngi ci ñun lépp luy maye doole ci la ñu nekk ah. parce que ay xale lañ sunu yaram war nañ koo mën a teg lu ne. waaw kay noonu la demee ragaluñ dara te loolu sëf ñu tegoo ko bu récupéré jotee ñu récupéré bu bëre jotee seen combat am na dara parce que yàgg na trop préparation bi. depuis avant Covid bi ba léegi. waaw ñun suñu combat depuis daaw ba ren la léegi mu dem un an. Mhm. mais nag mbas may ñëw ñuy ñaan yàlla sunu borom génne ko fekk jàmm. Mhm. mais Assane Ndiaye waxoon na ma ne tey lay wemu tis dat CNG ñu ngi koy déglu. Mhm. moom sama grand la sama papa la sama lépp la. moo tax bëgguñ ko sonal ci dara xam nañ làmb ji ni mu demee. dat dafa jafe mais lu mën a am rek. sama xarit la sama lépp la maa ngi koy ñaan mu gaaw wutal ma dat parce que man dama war a bëre mhm. bërewaat mhm. man du ma mbër muy taxaw di xaar leneen non non damay bëre bërewaat dem sama yoon mhm. parce que damaa ci làmb fi ma war a demee sama yoon taxu fi pour ñëw di arrière wala dara liñ ma doon nax nax nañ ma ko ci làmb ximbileku naa bu baax xam naa li ma mën a jëmale ca kanam xam naa li ma mën a delloo ci ginnaaw te ci kàttanu yàlla lu may jëmale ca kanam ci noonu nag ñi am CNG bu bees boo fa nekkoon tey ji ranga nga fay wax ñu yokk ko wala ñu wàññi ko fa waaw CNG bees bi nag mënaguma ci wax dara parce que bëree gu ma mm-hmm. su ma bëree ba xool règlement yi ba xam teg nañ ma loo xam ne waruñu ma koo teg wala def naa lu ma warul def ban wax ma dinaa mën a xam lu ma ciy wax mais instant bii moom mënaguma ci wax dara parce que depuis mu door rek léegi mm-hmm. defe naa coow amagut seen biir coow du am mais ndax CNG bu bees sax instant bi waroon ñaan ñu yokk ci wala ñu wàññi ci ndax am na CNG bi fi nekkoon non xam nga CNG bi fi nekkoon dañoo génne lu bëri lu ñu doon bañ ci lam lu ne ñu delloo si waat mhm. kon moo tax mënaguma wax mhm. indiwaat nañu ay diilit indiwaat ay boyal pour ne ci biir yooyu yëpp nanguwaat nañ ko ak yor ay bij nag yooyu kon xam nga loolu yëpp lamb la woon te indiwaat nañ ko ci charme lamb la bokkoon ci charme lamb la bokk kon mënaguma ci waxaat leneen bu ma mhm. demee ba gis loo xam ne tere nañ ma ko te mu doon aadalam mën naa ko wax taxaw kaas mais instant bi moom mënu ma wax. instant bi RAS lépp ni lépp nice quoi. <laughs> si sa jaam sama papa borom Kaolack. koo xarul laadum la yëkkati may ma ko. xar booy xam ne ñaari million lay jar mu ko may ma ko. Mhm. barke alxuraan. Mhm. est-ce que ma. Mhm. muy fii euh, caaroy gii sama papa Ngopa. su ma neexoon suba suba ma dem jël ko maa ko fa bàyyi. moo yëkkati xar may ma ko xarul laadum. ne nii fay nañ ma ci 2 millions mais du ma ko jaay. dama koy yar ba mu màgg mu am ay doom ma am géttu xar. très bien très bien. yow laa gëm de. <laughs> ci noonu wax lu leer ci jaam kenn du moom borom Kaolack borom Medina Baye kooku sama xarit la <laughs> kooku moom kenn la ci man sama papa sama xarit la teg ci di ma ñaanal mhm. waaw. mbay guy gi ñi ngi fan yee passé ay mbër daan ay mbër daanu seen ay supporter di yàq. Mhm. ba ñu sanctionné seen mbër ya est-ce que yow yaa ngi waajal loolu sa xel sensibiliser sa supporter yi pour bis boobaa. xam nga boo nee bawal Youssou Ndour nee na coow coow li bawal. Mhm. lu mas a bawal moo ci jiitu. Mhm. est-ce que ma. ñun bawal ci jàmm ci jàmm lañ xam <laughs> bawal fële lépp nice est ce que ñu ñëwaat Medina. Hmm. ñu ñëwaat ñu ñëwaat lépp gën a nice quoi. Hmm. xam nga Medina moom fair-play lañ xam soulagé ne ci jàmm. Hmm. ñoom nice la ñuy dund. man bawal ak Medina ñoo ma seex. est ce que dégg ma kon xam nga ne kon ñun nice. ñun ay supporters yi noble lañ yor. ñun yoruñu supporters yoo xam ne bu ñu xëyee duñ ndékki wala yooyu. ñuy dañuy lekk ba suur naan ba mandi ay noble lañ. bawal bawal yi ku ci xëy da ngay sangu ba set liggéey. waa Medina foo leen fekk dañuy sangu ba set sol rafet am classe. Mhm. kon ñun ñi ne seen biir ay noobul lañ li ñuy def sañ sa ba rafet ñëw toog seen mbër du leen yàggal huit fee bien fee ñu dem suñu yoon. muy noonu de wan seconde barki Demba Ndiaye. arène nationale mu daal daal ki nga xam ne mooy Alioune Seye numéro 2 vite fait ay seconde ngóor gi. Mhm. kontaan nañ ci yow lool lool lool xam naa ne émission fi fii ñuy jaaree ndar képp lan ngay tàggatoo be. li may tàggatoo mooy di leen gërëm di leen nuyu yow nga doon sama jigéen bu baax. Mhm. waaw nga doon nit koo xam ne nit ku baax nga. Mhm. yaa sama doomu ndey. Mhm. sama xarit Mansour ak Mbaye ak sa caméraman bi. Mhm. yéen ngeen doon nit ñu baax daal. ma leen di ñaanal seen di dem ba dem a doon ay tele tele amiin di ñaanal Pape Dialy seen patron. yàlla sunu borom yokk ko. ba mu tëgg lu mat ay cent combat réussir total. amiin barke Seydina Mohamed ci weeru di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu képp kuy yeewoo Petersen. Sandaga maa ngi nuyu ñëpp Medina fi ma dëkk. waa yi on sama booy mafia bi rankang di nuyu waar yi tëree sama koñ di nuyu Cheikh sama waykat sama doomu nday sama xarit di nuyu Salman champion bi sama doom nday la sama xarit la sama booy yi ñoom maam Cheikh waaw sama mafia bi dégguma la ne nu mu demee noonu sama doomu sama géwél a ngi moo may tëggal kaay waaw kii moo may tëggal est jël ko sama doomu nday la sama xarit la sama booy la mm-hmm. waaw toogal nii sama kanam sama waay la quoi moom moo may tëggal sama booy la di ma tëggal lu neex saa bu ma tëggalee ma daan mu jig ma. Mm-hmm. est-ce que dégg nga ma. Mm-hmm. muy sama booy di sama xarit. maa ngi koy ñaanal réussite total moom itam te combat bi ñu ngi waaj lu bees tàq lug bu bees tàq waaw ah. yaa waaw noonu la demee ci sama doomu ndey la sama xarit la sama rakk la ah. waa di nuyu ñëpp mbay santineer mbay nderep mbay bunt ba sama doomu ndey la sama xarit la du ma tàyyi kooku dal may jàppale sama waay la ma centenaire. sama waay sama xarit maa ngi koy bëggee bu baax di ko ñaanal jàmm moor Baye Fall maa ngi koy ñaanal bu baax sama doomu nday la sama xarit la ah ak kii sama doomu nday sama xarit maas borom ma tey sama waay la waasin tóor mooy nii sama fils la maa ngi koy ñaanal ndam yaa ma gën a xam mood la ma sama patron sama xarit maa ngi koy ñaanal moo xam li mu bëgg na ko yàlla defal jàmm ci barke alxuraan daam siise aw ma fayam kër bu mood la ma aw ma fayam bàyyi laat sama xarit sama doomu nday maa ngi koy ñaanal jàmm baay laat aw ma sa fay yaa xam li nga bëgg yàlla na ko yàlla defal mm-hmm. sama doomu ndey nga sama xarit nga sama booy ku ma tudd damay juum mm-hmm. hélas mii sama doomu ndey la mm-hmm. kii moom boo ne mbay guy gi mën naa reyanteeg yow mu ngi bunt ba Petersen sama booy la sama xarit la waaw maa ngi gërëm ñëpp di gërëm Mahmoud borom Six Avenue sama doomu ndey la sama xarit la di bëggee sama booy ñoom Aliou ñoom Seena ñoom maam Cheikh sama booy yëpp daal bu ma damay juum Souleymane ah non waaw képp ku ma tuddul da ngay xam ne kàddu gi la mooy lool te maay tuub di jégalu di ñaanal ñëpp jàmm di noyu sama papa Dieye Sène mhm. Assis Ndiaye sama papa Bada Dione maa ngi ñaanal ñëpp borom ñetti baay yàlla na fi jàmm yàgg doo tëj de waaw sama cameraman day anniversaire dama ba nga souhaiter ma happy birthday sama xarit Mansour ñu ngi lay wax joyeux anniversaire longue vie à toi yaa xam li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul sama waaye nga sama xarit nga yow yàlla na sa jàmm yàgg yow dundal ba ne allo yàlla téléphone doyal naa. nice. ay waay Mansour lay bëgg a waay Mansour jàmbaare. Ah, waaw. happy birthday dundal ba say may di baawaane. yow mi Mansour jàmbaar nga man de yërëm naa ku la bañ Mansour ñu ngi la tuddee Serigne Mansour si kooku Serigne Babacar si mooy baayam waaye Mansour bari jom ga xale nga teel a xëy guddee wàcc yow mi dama lay wooy ana Mansour eh, dundal ba say may di baax waan yaa di borom Leewtoo loo wanewul du fee jàmbaari jooni jooni jànge waaye dama ni guy gi Mansour dundal ba say may di baax waan da ngaa wax ku baax léegi muy Aziz Ndiaye di sunu xarit Aziz Ale Ndiaye. bakki rek dara aram loo maam Kumba Caam aayu mbaay Ndiaye mbokkam yaay mba do jonn doomu yaayu mbay guy gi champion bu mag baa ngoog Aziz Ndiaye. yomi dundal waaw. jaajëf jaajëf. naa ki ay junni yu laa koy may ah Mansour Fall sama caméraman bi. kontaan naa ci yow loolu dana la happy birthday barke Serigne Touba su may wax ci yow sax billaay sama xol bi day fees ndax fi nga toll ci man la billaay wallaay du liggéey rek moo ñu boole danga maa jàppee comme mag boo bokkal ndey ba ma jàppee la comme rakk bu ñuy rayante ci bureau bi nga foog ne ñii dañoo bañante dañu pare ñu ñaa ñooy àndaat billaay jàmm ju bari laa lay ñaan naan la dundal doomu ñay doomu ñay kenn du ko ñaanal rëy da nga koy ñaanal gudd fan Mansour boo dundee barke Serigne Touba teranga àdduna da ngay am barke billaay xaw ma sax lan laay wax barke Serigne Touba jàmm ju bari laa la ñaanal barke Serigne Touba dundal dundal ah, ba doyal Mansour ci noonu laa jaare nag tàggatoo ak yéen balaa sama xol bi fees ma jooy ah Wassinto maa ngi lay bëggee bu baax kontaan naa ci yow vraiment borom jàmm nga mbay guy gi kontaan naa ci moom lool lool sama xaritu bopp bi sonal naa lool mais toujours sama sama lonko la naa ci moom ah, sama xaritu bopp bi Diourbel Mbaye Babacar bëgg naa ci yow trop borom revue de l'arène borom borom ak Leewtoo ak borom ndogu ak kontaan naa ci moom Bilal ci yow moom maa ne sama chauffeur yow moom foo demul rek man du ma fa dem bugguma mais sama gars yi waa Medina bëgg naa leen yéen ñëpp ah, cat ba cat kontaan naa ci yéen lool lool lool. noonu la ñu defaan ah, dem ba beneen yoon rek ci beneen mbër ak beneen ndogu ak jaajëf.